mu mel ni coowal mécanicien yi ñuy jëlee ci yenn ci ay diwaan ci biir ndakaaru jeexagul ndaxte ñenn ci ñu jëlee woon ancienne piste ak yeneeni diwaan ñu nga commencé samp fële ca Sacré Cœur 3 askan wa fa yeewoo gis ni ñoom dañoo amul pexe. ñoom dañoo amul lu ñu bëgg ku am lu mu bëgg. duñ la dàqee fii dàqee fa la dàqee fa. gars yi dañoo sonn xam nga koo xam ne responsable yor njaboot donc kooku toog waru ko. kooku bu fekkee ñëw nañ fekk ko fu muy liggéey yàq ko. nan lay def xanaa bu génnee fuñ ko woo mu ñëw fekk fa euh, lu mu mën a liggéey mu liggéey ko du loolu. bu sukkandikoo ci ñoom ba tey ñu leen di artu ne foofee wóorul ci ñoom waaye itam waxtu wu nekk mën nañ leen fa jëlee. wóorul de des fois fii gars yi dañuy sàcc seen batterie oto. lu bëri dafi ba waral di ba day uh, am fi ay sàcc. parce que taxawuñu si tali bi tamit taxawuñu si tali bi dañuy xool foo xam ne am na benn espace te defuñu ko comme maanaam garage dépannage tey léegi bu fekkee yow da nga am mécanicien boo xam ne moo la doon dépanner ancien piste nga yor sa oto bu fekkee paan nga. fan nga paan euh, foo mënta dëkk rek nga woo ko ah diw ñëwal nga fekk ma fii da parce que foog nga dépendre sa oto. ñu dénk seen i kàddu daal di dëkkee foofee ca Sacré Cœur di sàkku ci nguur gi wut ci ay pexe ci nu mu gën a gaawee daal di leen di recaser. man li may ñaan état na leen état dimbali utal leen benn bayal bu yaatu bu ko defee euh, indil leen fa ñuy mën a continuer seen liggéey ñu liggéey. waaw ah, nguur gi moom xam nga moom comme que ñoom ñoo ko moom sa place tey soo ko soxlaa da koy jël nest yow amoo kayit yu légal yoo xam ne leer na la yow fii yaa ko moom da nga faa laxatu rek di fa liggéey su la la waxee jóge fi jóge fi. fan yi yëpp ñu nemmeeku ay opération de déguerpissement rawatina ci yenn ci mécanicien yu daldi di nekkoon ci yenn yi gox ci biir ndakaaru mel ni nag ku ci nekk yaa ngay wut noo toje sa bopp ginaax ndaxte fii ci Sacré Cœur 3 commencé nañ di fi ñëw ngir mën a daan seen doole.